xaar ba résultat yi génn ñu wasaa ko ba ñëpp xam ni li lee fi génn daanu taxawe noonu. Mm-hmm. te bu lépp dajee itam daanu teel a am sunu fulay bopp taxaw ne ah lii moo fi am ci résultat loolu moom dunu ci dunu ci kii mais dafa am ci benn point boo xamante ne aussi tamit dama ci bëggoon dellu si waat. Mm-hmm. sànq bi euh, imaam al amin doon wax ci côté diggante Bachir ak Ndengler. Mm-hmm. naan Bachir moom moo kii mais man loolu. maanaam daanaka dafa ma gën a motiver ndax xeexu diggante xeexu Bachir ak Ndingler man dama ci nekkoon loo xam daanaka dama ko doon topp bu baax a baax. Mhm. ndax dama jàppoon ni loolu moom mooy li war a ne ndax nag nit mënoo ko jëlee ci suufam ba pare mu war fa doon étranger wëlbatiku doon fa doon fa doon fa nu mu koy sax doon fa journal yi. Mhm. ñëw fekk nit ci suuf maam ba pare bëgg ka defub journal yi loolu loolu dafa yanuwul sax maanaa war nga ko garanti loo xamante ni. mën na mën a assurer ay arrière mhm. ndax boo jëlee suufam di ci liggéey ah war na am lu dellu si moom. moo tax loolu combat boobu noonu Bachir président Bachir doon doon doon doon doon mëne xam nga boo seetloo daan na wax ni carrément boo jëlee suufam village ba gàtt gàtt jurteef ga ca war a la ngay maanaam boo bayee suuf sa vingt cinq pour cent war naa dellu si waat ci village ba nga ko jëlee te muy dëgg loolu lu mën a nekk la. Mhm. ndax boo exploité suuf si waruñu wëlbatiku di doon ay ouvrier simple yow ñëw installé nga fa sa benn projet agronomie et consort war na am ñu war a mën a dellu si waat si ñoom. Mm-hmm. loolu moom moo tax tey jii nii man sama taxawaay ci fa ma dëkk muy gendar ndax fu mu toll nii dama gis ni maanaam la liggéey ma ngay sooxe. Mm-hmm. muy ci géej gënu am di liggéey. plateforme pétrolière boobu noonu te ñoom amuñu leneen amuñu suuf bu nu bayee bayuñu. amuñu ay jur yu ñuy sàmm géej la ñu am di napp kon maanaam loolu noonu seeni territoire moom muy géej gi. kon tey jii ñiy exploité war na leen mën a bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax ci maanaam wàllu recrutement jeunes ñu war a mën a liggéey bu baax ci plateforme yi beneen tomb bi mooy maanaam jurteef ya nga xam moom la war a mën a am am na pourcentage boo xam dafa war a dellu si waat ndax seen bi seeni métier dafa nar a dee napp gën a war a napp. du nu mën a yegg ca fa plateforme bi nekk. Mhm. te plateforme bi mi ngi jege ba dee boo taxawee guddi da nga leen di gis. Mhm. kon am na loo xam mënut a ñàkk dafa war a dellu si waat ci quartier bi. mais nag foofu gisuñu ci seen bopp ba fi mu toll nii ca liggéey ba fa mu tàmbalee te itam wax dëgg fa dëgg yàlla compétence yu waroon mën a gérer ca tàmbali ba ñuy monter plateforme yi ba léegi ñàkkul ca quartier ba am na fa. itam ay formation yoo xamante ne xëy na amaana dana mën a dimbali jeune bi ñu dem ci reconversion si yeneen métier ndax li ci ëpp ci napp gi rek na ñuy dund te ñu xam ka nag. mais Sénégal buñ buñ buñ arrêté. Mhm. licence yi ñuy joxe ak bitim réew yi ñu fi yaatal. Mhm. buñ ko bàyyee léegi dooleel nappkat yi lu euh, plateforme boobu def def du tee Sénégal am géej parce que ndar rek du géej Sénégal Kayaar ak Mbuur ak nangam te ndar boo demee Mbuur fekk fa géej ndar. soo dee fekk fekk fa ndar ndaw Sénégal amul problème hmm. bi nekk ci loolu dama lay kii est-ce que xaw ma jotoon nga bàyyi xel mooy problème mu Kayar bi ah. hmm. diggante Kayar moo la gën hmm. toujours dañuy am problème boobu saa mun na nga yëkkati micro bi tuuti toujours problème boobu dañ koy am ko maanaam fu nu dem di napp dañuy am problème yi dem leen seen géej waaw doomu gànnaar fu mu dem dañ naan dellul sa géej léegi tey jii nii gis nañu menace bi nga xam taxaw na léegi nan na nu bëgg du ñu dellu feneen ndax feneen fu nu dem amaana ñu indi fa coow. Hmm. ba amaana ñàkk ci ay bakkan. mais xam nga Sénégal bi muy am jën dëgg-dëgg. nga xam ne bateau hmm. man li may wax ni yëpp na sax suñu yaat man ne dama naan avant 1992 wala bi ñuy nekk xale. Hmm. di dem ba kii nangam doonoo woon gis mool yi comme tey génn dara. boo demee tamit fekk fa ñuy wax ndar bu ndaw. Mm-hmm. da ngay fekk ñoom ñu ne benn lañ doon. man mm-hmm. mbuur laa juddoo. Mm-hmm. mais biñ demee ba mbir mi commencé di ñàkk. bon après man nga nekk menace si kii parce que kii nangam mi ngi mel ne nga dem Mauritanie. ñu lay fetal wala lu dem noonu xam nga wax jaay ay licence tubaab yi ni ñu bëggee protéine ñoo leen ko gën a bëgg fuuf ñun yàlla bind ak géej ñu nekk ci wet gi dendeek moom. man am na jën bu gaa yi lekk fii dakaar lot. tant xale ñu kenn xalaatu woon lekk ko. moom buum ay genre yi. da koy sànni. jën yi gënoon a bon léegi moom ngay gis nit ñi di ko lekk. Mm. ah cam waay. Mm. doy na waar ah. doy na waar euh, je vous rappelle que vous êtes sur 313 euh, digital euh, te lépp lu ngeen fi seetaan rek lu leen neex la bu ngeen seetaanee ba ci yàgg aussi n'oubliez pas de vous abonner d'activer vos cloches de notification te xam ne mbir mi seen mbiru bopp la. Mm. mais saa fu ñu toll nii vraiment lan moo war wareef bi lan la. campagne nañ ci des. mais far ngeen di clôturer seen campagne yéen. non que dafa mel ni kenn waxoon mais Dakar ci fan. exactement wala da ngeen di waa rek xam dara. ci hmm. nga xam gars waxagu leen Amadou Ba waxagul. mais waa moom dégg naa waaw kenn ku nekk day hmm. day kii waaw nag. nekk di kii rek. baal ñu mais waa Pire moom ñu ngi stade Amadou Bari ñoom defe naa. waaw waaw baal nag man ma wax la am na lu ma gis fii mbaa du candidat fii kii am na base bu ñu ciy def am na candidat yu fa xaj buy waajal na candidat mais mais ça euh, Pape waxoon na euh, wala gaayee ko doon wax débat ak jomaay bon man mais mais démb moom waxaat na ci nee na Pape Djibril xam nañ ko ah. waaw moom neexuta neexuta ñeme xale bu saf bon xam nga nag gis joomaay xam nga dafa war gars yi dañoo war a moytu ngay liggéey ci communication rek def na boo jàkkaarloog nit di ko xeeb man démb rek barki démb rek def naa ko dem ci benn kii gars yi taxaw di yaakaar ne da ngay da war a xeeb nit ñi. Mhm. ah mbaa waxal waxal waxal doxalal. da mhm. gis nga bis boo xeeboon joomaay naan naan joomaay juwaay bañ tegal la joomaay fay. Mm. lay boo taxawee. da mu lem la. yow ku jàkkaarloog maître El Hadj Diouf mi nga xam ne daa lekk waxaa nga xam ne ci moom dafa intervenir maître dafa mujj naan buñ ko kiiwu daa daa waxet mm-hmm. man joomaay dafa mel ni nit ñi dañ ko ëmb xam nga nag loolu mooy manque culture générale maanaam Sénégal nga xam joomaay daan ko gis muy intervenir ci may MNF jaar na fa jaar na ay seen jotaay jaar na fu nekk mm-hmm. donte na li muy kii bëriwul mais surtout salon d'honneur bële passé waa salon d'honneur voilà war fa daaw nga xam kooku ni mu teeyee suuf mën a wax xam fi mu koy. mën a tontu nga ne da koy suur. mais bon man nag c'est la bonne guerre parce que nag ci politique lañ nekk euh, man loolu bu ko Pape man li ma doon nangu sax nag. moo moo dégg moo waxoon même Maimouna Ndour Faye ne ko boo bëggee xam viol hmm. déglu nga la ba muy wax ah. Maimouna mu ne ko soit <laughs> dañ la war dañ la waroon a mës a violé euh, wala nga dëkk kuñ ko mës a def dëgg la parce que dafa am yoo xam ne dafa yomb quoi maanaam nit ñi parfois dañ lay laaj laaj yi bett yoo xam ne mooy loolu mais li nga ciy xam rek mooy man awma problème parce que démocrate la mhm. Sénégal waroon na wees bi waroon nañu nag am nag euh, débat débat parce que tamit loolu sax man naa ne Macky Sall moo ñu ko xañ parce que entre les deux tours bi ñu ko defee euh, mook Wade Wade bëggoon na ko mhm. Cheikh Yérim moo ko proposé Wade parce que amoon na émission bi doon face à Yérim doon amee Sénégal 7 mhm. euh, noonu non Africa 7 doon amee Africa 7 ma Macky moo nanguwul mais li may nangu mooy 3 minutes 3 minutes RTS yi. Mhm. ci jamono toll wax dëgg yàlla. Mhm. RTS ak taaxam mi j' espère que élection yi di ñëw sax heureusement. parce que mhm. président Diomaye incha allah mooy falu. comme ça ñu am élection buñ ci dematee candidat yi ñu teg leen nii. ci salle bu yàgg seen ay kii ñëw. ñu di leen challenger kenn. mais loolu liy gën a yomb day fekk ñu am primaire bu ñu amee primaire. Oh non ba pare kii ni ñu am ay can mais 19 candidats saa boo leen naree defal débat tamit. bu nekkee 19 euh. candidats ñu daje fenn kenn ku nekk nga laaj ko ci naan chronomètre def 2 heures de temps ni jàll ci ci ci kii bi sur campagne. Mm-hmm. même man mën nañ ko. laaj leen fii laaj leen fii. Mhm. wala tey nga jàllale nit ñi bu ëllëgee nga jàllale loolu lañ gën a soxla RTS di teg kenn ku nekk mu lay enregistré 3 minutes wala daal. Mhm. loolu moo ci nekk mais avec suñu yeggee réforme yi ñuy def danañ dem ba parti politique yi war naa bañ a bëreeti comme ni muy bëreeti. Mhm. Sénégal war naa mën a dellu ba 20 parti politique du ko fi am parce que du ko am. parce que bu fekkee ne démocratie am na ci parti yi comme ni mu amee ci parti yu baax yi. soo amul lu la neex bu la neexee nga postuler congrès. nga sañoo postuler. Mhm. Ousmane Sonko bi ñuy dem ñoom di investir Ousmane Sonko mais dañu jël nit koo xam ne dafa yore euh, kii bi muy nguuda euh, mbub ak euh, am na beneen soxla ñoo xam ne sax bokkuñ seen autorité de régulation waaw autorité de régulation mhm. ñu tegal leen superviser leen dañoo laaj ne kan moo bëgg candidaté mhm. fépp ñëpp dal di ne noono dal di ne Sonko mooy seen candidat ku mu neexoon tey nga ñëw daal ne Sonko man damaa bëgg candidaté boobaa da ngay dem ak moom boo gañee gañee ah. loolu noonu bu ñu koy animé dana dem ba léegi sox parti yi dootul soxla muy bëri mhm. parce que bu la wóoree ne parti bi compétition ngay dem rek ah, nga compétir si la nga falu nga nga falu dem candidaté waat mhm. pour man foofu la ñuy xaar Sénégal mhm. di wax ne daal sénégalais fii ñu yegg ba tey am nañ euh, sant yàlla la ñuy def parce que ñi ngi doon jàpp naan élection du am campagne du am campagne nañ ko ci jàmm voté nañ gaa yi ja ku nekk jàll ga nit ñëpp wan nañ leen ne joomaay moo ci gën maanaam candidat yi mhm. wan nañu ne joomaay leen gën ndax ñoom ñëpp ci moom kon ñoom joxoñ nañ leen fi baax mhm. kon ñi nga xam ne ci joomaay nañ xam ne joomaay bi beneen bi mooy nañu dimbale ngir yàlla deuxième tour bañ am Sénégal parce que waa ji nag jox nañ ko réew mi mu yàq ko ba mu yàq egg ci foo xam ne naaruñu woon a am élection ba mujj conseil constitutionnel dañoo mujj def ko ci loo xam ne nii maanaam defuñ ko ci date bi gën nga xam ne bu ñu rombee 2 avril te waa ji nee naa day pare daw waxtet léegi nañu dimbale nañ ko teel a yombal al di fal jamaay mi bu defee 5 ñeneen ñëpp yéen ak Sonko ci yam après ku nekk ñëw mën a candidaté waat posté boobu la ne waxee bu boobaa sa livre danañ ko yër mm-hmm. mais avec fii ñu yegg si dañu am problème mu te boo joomaayee jub mooy jubal te mooy jubanti. Mhm. jërëjëf mais mais saa gis ngeen ne peut-être deuxième tour mën na am ci élection yi. déedéet man loolu xalaatuma ko. non non si sa jàngat ko waxuma si sa gis-gis wala boo génnee fi nga farak élite patriotique yàlla xam na ne du par parloo mhm. su ma gisoon dëkk bi ci laay dem mhm. sooy dem gis nga soo fekkoon tey ci dëkk gis fa ay kiiwu Amadou Ba da gis danañ taxaw di ko manifester wala nga xam ne fii yaa ngi sentir ne fii kii yee fi moom mais du Ndar mhm. du Louga du Mbuur du benn dëkk boo xam ne da nga fa sentir jaar sentir ne am na fa mhm. koo xam ne taxaw na fa mais ça paraît-il euh, nee ñu le conseil constitutionnel rejette le retrait de la candidature de Habib Sy waaw mais nañ ci dugg loolu ba tey parce que waxoon na waaw ba pare décision lay joxe loolu mooy tax léegi nag problème bi mooy euh, bu rejeté wut dana ca nekk waaye sénégalais yi nañ xam ne tànn Habib Sy bëggul ngeen tànn ko joomaay la leen pousse loolu na ko wax ci candidat xam nga loolu mooy droit. Mhm. mooy conseil constitutionnel kon mi ngi wax droit. Mhm. maam parce que bosu Cheikh Tidiane Dièye tam mën nañ koo bañ a nangu même bu même bu Cheikh Tidiane Dièye. Mhm. noonu lay demee kon mooy droit la wax. ñun conseil constitutionnel saa yi wax droit rek. Mhm. ñëpp dañ ciy daal di nangu. Mhm. loolu mooy li nga xam ne moo nekk dëgg. Mhm. léegi nag nañ continuer nit ñi comprendre nañ jàll message bi jàll na xam nañu ne projet bi la woon su ñu deful woon joomaay suñu deful woon Cheikh Tidiane Dièye ak Habib Sy amaana dañ ñu doon kon est-ce que ñoom yéexuñ ko yéexuñ ko retirer. non non conseil constitutionnel ba mu xasee ba jubal. joxe décision. Mhm. ne ñi ñooy dem. parce que bosu Rose Wardini xam nga Rose retiré na. bosam boobu ñu nangoo ko. booba booba départ mais mais mais mais man daal maa ngi laaj xañ parce que est-ce que ci. liñ constitutionnaliste bi la ci constitutionnaliste dara mais lu mën a mhm. am daal li wax yenoon na maanaam. mais nag kon Habib Sy moo leen di wan ne sénégalais yi ne tànn loowu ma leen. Mhm. sama bopp. joomaay laa la tànn ay ca sëñ Thiam lan la ñuy euh, daanale ak yéen taxawaay bi lan lay doon euh, fu mu toll nii. man nag bëggoon naa xam vraiment ndax da ngeen di def meeting de clôture wala dara. Ah, dañ koy def kay rek. Ah, mais du ngeen ñu yëgal ñun ñu xam. waaw da nga yëg dinaa woo gars yi laaj leen. Euh, ndax Sonko dafa ne woon moom ak Jomaay Kaolack la ñuy dajewaat xaw ma nag parce que fu mu toll nii moom mu ngi raneeru defe na Jomaay mu ngi fan nii actuellement. Euh, noo Diomaye moo nekk Ranérou Sonko mu ngi Podor euh, ñu ngi dugg ci Fuuta bi de fu mu nii moom <laughs> ay ca saawaay eh, taxawaay bi ak lan ngay daanale